mars 2021 loolee daal kenn fàttewu ko daanaka sax ñetti at ngi nii ñu ngi koy ŋawti ŋawtee ba tey ci fàttali rek am image nga xam ne ñu ngi koy gis ci télévision yi boo xam ne sax yéen kaay dañ ko daal di euh, fësal euh, jaaroo rek ci jumtukaayu xare yi lée waaye tamit ay jàppante métti yi nga xam ne moo xewoon fii ci Ndakaaru ci mai wala année wala sax ñu gis tamit rek ay jàppante yoo xam ne daal yàgg na lool ndax Sénégal ci jaar-jaar ci wàllum mës ci atum 1968 daanaka sax moo nekk fësal gi ci atum 2011 nag mooy tàmbale daanaka sax njeexital pouvoir bi nga xam ne moo ñeel euh, bu Ablaye Wade ay jàppante xam ne amoon na nag ci 2021 nga xam ne ci fàttali dañ ko daal di méngale ak jamono joojee waaye sax dafa mel ni confiance moo amatul ci diggante askan wi ak li nga xam ne mooy nguur gi waaye itam ci fàttali amoon élection yi nga xam ne metti lool ci yaa ñi nga xam ne ñooy pouvoir xam ne daanaka sax lu bëree bëri ñaan ci ay département dañ ko daal ñàkk waaye ñu gisee daal am na xew-xew yoo xam ne yàgg na fee am ci Sénégal la ko tàmbalee ba léegi ak ci daanaka sax loolee daal yàgg na ci taarixu Sénégal waaye tamit nag li nga xam mën nañ ko jàpp ne naam sax dafa am wuute waaye tamit loolu li ko tar bu nga xam ne foo ko takk weesu na ko ak xam ne moo dox ci diggante pouvoir bi ak ñi tamit daal na daal ba askan wi tamit di toltolaan maanaam dundu gu cher gi ak ñi nga xam ne daal dañoo ñàkk teggin sax way politique yi waaye tamit gis ne kat askan wi seen bopp ñoom nee nañu wàllum liberté publique ak li nga xam ne mooy yorn gu bon dañuy ñaawlu waaye loolu tam bokk na ci ponk yi nga xam ne tamit ñoom ñu ngi koy sàkku ci nga xam ne nguur gi waaye tam ci situation bi nga xam ne daal dara wóor ci kon acteurs politiques ak société civile ñoom seen bopp ñoo gën a bàyyi xel ne ñoom kat ku ci nekk am na responsabilité kon ñoom ñaar nag événement mars yi nga xam ne daal am na ci atum 2021 bële boobaa léegi daal ñaari at yi nii war nañ cee am am akub jàngat bu nga xam ne day delluwaat ñu gën a bàyyi xel askan wi nga xam ne kat buñ deful ndànk daal ñoom daanu gën ci mbedd mi kon nag nañ fexe ba ni nga xam ne kat ñoo bëgg daal yor nguur gi bëgg ko bokk ñoom seen bopp sax ñoo war a xam ne kat jàmm gën ay kon tamit foog ñu daal di respecté kon yi nga xam ne moo delluwaat ci unité nationale ndax buñ deful ndànk rek dana nërmeelu